nee nañu nag sëriñ bi waxoon na ne jazbu ak mawaahibu ak muqaddamatul amdaax ak limaaxin bashirin dama njëkkoon a tudd miime waaye dañoo gis fu ñu bind net li boo xam ne limaaxin bashirin lañu fa bind te mel na ne moo gën a wér kon ma naa jàpp jazbu mawaahibu muqaddamaat ak limaahin bashirin muy xasida yi ñi bari la jàng ci guddik gàmmo bokki taalibe yi moo xam dañuy yëkkati moo xam dañuy durus ci guddi googu daal mën nañoo baril jàng yeenti xasida yooyu xasida yoo sax señ bi wax na ci ñoom ba tàyyi ay waxi wax amna net li bu ne señ bi dañu won jazbu mawahibu muqaddamat moy ay fasam yi nga xamne ko ñu war te waccio leen da mën la ceppel aljana ak ku dégg njàngum jazbu du dégg reeram sawara loolu ci ngëneeli jazbu la ak mawaahibu nafi bu ko junni nit doon jàng bis bu set junni yoon itam du tax mu sàppi yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa barak ba tey sëñ bi nee na amdaax fukki bunt ak juróom benn bunt bu nekk fukki wayat ñaar la way bu nekk mel ne jaamuk at